mbokk yi ak xarit yi euh, bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw àndandoo déglu Kader ak Fatou Abdou Ndiaye Fatou Abdou Ndiaye recadré na ko sax ci biir wax ji parce que Kader dafa am loo xamante ni bii moom la doon bëgg a wax di maanaam di weddi chiffres yi nga xamante ni bii joxe nañ ko ñu àndandoo déglu ko déglu it la nga xam ne moom la ko Fatou Abdou Ndiaye wax. te daal des déglu je amul benn centre yéen ñëpp ñu ci bari couvrir nañu ubbi leen téléphone bi ngeen xool ñu demoon couvrir ban ban centre nga dem wala bureau de vote nga fekk affluence bu extraordinaire wala nit ñi di rang y avait pas de rang da ngay ñëw dugg voté génn. mais au soir ñu lay annoncé ay chiffres yoo xam ne si ne chiffres vertigineux. mais ces annoncés par les journalistes. Ouais, ah non je sais non non non non. Ah yooyu Fatima Diop moo ko joxe. non je sais Golf Sud de vote yi mu am. Aziz Sow moo joxe Géejawaay. te lu leer la. yaa ngi dégg te lu leer naññi la. Kër Massar Idrissa Dieng moo ko joxe Alassane Balde moo joxe Parcelles Assainies Pape Mante Mboup moo la jox bu parcelle mhm. Alassane jox la bu Grand Yoff jox la bu Médina te yaa réalisé maa doon réalisé dëgg moo xaaral rek xaaral de quinze heures à vingt heures te loolu leer la te ñii non ñii la jox les résultats depuis kii depuis 2009 booba maa nga Océan FM moom mu nekk Sopi FM mi ngi dem élection c'est ça non waaw kàddu yi de mooy kàddu yi nga xam ni moom la Kader yëkkëti maanaam diingat li nga xam ni wax nañ ko ci ngoon muy taux bi nga xamante ni bi wax nañ ñi voté nañ mu ne lu mel noonu amut parce que li tax amul mooy euh, influent amutoon kii nit ñi te mu ñu voté ji comme ni nga xam moom lañ war a voté lan moo war a tax ñu jow ba ngoon rek ñu jox ñu yenn chiffres yi Fatou Abdou Ndiaye tontu ko wax ko ne ko de ay journaliste ñoo fa nekkoon joxe ay résultats yoo xamante ni bii joxe nañ ko waa xam nga pareen saay man de wax dëgg fa ma doon voté kadeer nee na rang amut waaye man damaa ngir voté kon li Kader wax moom man moom mënuma koo gëm parce que ba ma ñëwee nit ñi teel nañoo xëy parce que man dama teela a voté te ba ma ñëwee it dañoo ran ran nañ ngir daal dee voté man nag boo ma ba pare damaa génn dem ca sama kër toog di déglu après li nga xam ni moom la ñuy wax li xew loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li mooy li am. mais li am solo xam nga pare na saa yi dafa am yoo xamante ni yow amu jumtukaay pour natt ko amoo xam-xam ngir weddi li nga xamante ni bi moom la parce que buñ la waxee amoo dara loo fa teg foofu euh, ci la kannasu nasu tàmbale mën nañu wax sax ni fa la yem parce que doomu aadama su fekkente ni da ngay weddi dara dafa war a am loo teg loo xamante ni bii kat da ngay wax ne ci lii laa sukkandiku mais moom ci li mu sukkandiku li mu wax loolu du lu ñu war a sukkandiku ban heure la ak ban moment parce que ñi nga xam ne ñoo doon joxe yëf yi wax nañ ne diggante heure sàngam ba heure sàngam taux bi yéegutoon moom ban heure lay wax fan la sukkandiku. waaye diggante heure sàngam ba heure sàngam ci la nit ñi gën a buñ lay jox résultat yi résultat final lañ lay jox mais joxuñu la résultat wu benn waxtu wala ñaari waxtu wala résultat entre euh, neuf heures ba treize heures mais dañoo dajale résultat wu bureau de vote yi bi ñu ubbee huit heures ba yegg ci dix huit heures ñu ne la lii la mujj yi def waaye yëf yi nii la yéegee loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li boroom xam-xam yi àndandoo wax parce que diggante ci suba gi ba ba ñuy yegg ci ngoon gi yëf yi demeewutoon rythme bi comme ni nga xamante ni bi noonu la waroon a demee parce que dañu ko nag xayma woon te ñu ko doon xayma dañ ko xayma woon ci élection bi mujj muy élection yi nga xam ni dañu nekkoon ci weeru koor nga xam ne nit ñi dañu teeloon a xëy daw vote ji balaa ñenn ñi dem nañ vote ji parce que dañuy defari ndogu ñenn ñi dem nañ vote ji c'est parce que dañuy bañ koor gi te xëdd nañ daal dee daw parce que promotion bi dafa jàlloon xëdd vote ndogu jubilé loolu mu nekkoon rythme boo xamante ni bii ñëpp ci lañ focusoon nit ñi bi ñu xëddee nelawaatuñ dañ ne balaa ñuy nelawaat naa dem defi ji li nga xam ne moom laa war a def kon foofu te boobu boo xoolee élection boobu tamit biñ demee ba ci ngoon yëf yi dafa faible parce que nit ñi naka voté nañ ci suba gi ba pare bii nag nit ñi ci ngoon gi lañuy ñu ëpp que ci suba si donc loolu mooy li nga xamante ni bii euh, mooy li am mais façon mu kadeer yi dañuy ñëw maanaam xamuñu dégg nañ benn kii rek maanaam dañuy dégg tell rek. ne damm na waaw parce que li mu doon dégg ci suba gi jàpp na ni noonu la yëf yi demee boo ko laajoon da wax ne la man bi may dem vote ji heure sàngam la woon te heure boobu influence bi mënoon na bañ a demee noonu mais am na ñoo xamante ni bi après am nañ problème pour mën a voter parce que boo doon dégg journaliste yi sax dañu la koy wax dañ la wax ne fii est-ce que duñu yokkaat sax heure bi parce que nit ñi actuellement dañu commencé di ñëw bu baax a baax te ku ne xam ne ni sénégalais ñu ci bari dernière minute euh, mën nañ ko loolu parce que man ba bi may dem ba ci ngóor gi dégg naa ñoom Matar Sarr et cetera ñu ci bari di expliquer naan ah fii de est-ce que du yokkaat yëf yi du ñu defaat nii kon boo see ci li nga xamante ni bi moom la la experts yi wax day wane yëf yi xam nga pareen saay lay amut liy am am na ba pare sénégalais yi jox nañ ki nga xamante ni kii moom mooy euh, Ousmane Sonko majorité bi nga xam ni moom lañ ko jox yaa ngi liggéeyal koo xamante ni demoon nañ ci élection yi représenté wuñu dara ci biir réew mi représenté wuñ dara ci fi nga xam ni fa lañ doon wax ne ñoom ñooy borom ñooñu nag bu leen justifier seen défaite pareen saa yi loolu day am di jéem a justifier euh, bañ sa patron mere la wala bañ kii nga jéem a xajamal yëf yi wala di ko wutal début tàmbali pour bu ñëwee nu mu war a jaar pour jéem a waxee noonu. loolu mooy li nga xamante ni bi moom la Kader di def mais li muy wax seetu ci yàlla mais jàpp naa ni Bougane la ciy seet di xool lu muy wax pour jéem a plaire benn nit pour jéem a xëppaale ci yëf yi kii bu ko defee mu mën a am mbégte ak kontaan ci li nga xam ne moom nga koy wax lool donc mooy li nga xam ne mooy jubluwaay bi donc mais euh, di rafetlu taxawaayu Fatou Abdou Ndiaye parce que mënuñu yabal ay journalistes ci terrain bi ñu wax li ñuy wax ba pare constaté PV yeeg yëpp ñu compté ci seen kanam ñu gis ñu daal def ba noppi Kader bëgg a taxawu xarab liggéeyu ñooñu ñëpp ne daanaka du dëkk loolu ay caaxaan la